religion nga teg ci sa tànk nga nga nga nga c'est-à-dire tu vas marcher tu vas t'asseoir sur les principes de ta religion Ousmane Sonko comme yow vous êtes des musulmans bien sûr man je suis catholique effectivement mais dañoo ne mhm. yéen dañoo ne bul laal bul jege waaw dañ la ne bu dee loxo bi moo tax ngay baakaar dagg ko tànk bi bu dee moo tax ngay baakaar nga dagg ko bët bi bu dee xool bi moo tax nga bët nga bët tuural tuural bët bi. mais ñun bu fekkee ne intention. léegi yow intention faju moo la ci moo la ci dugal. dagan na dama ne. bu booba léegi booba léegi ça fait deux ans ana oustaz bi ko ne dagan na ak moom nu mu mënee tudd ba MC Niass sax un ancien DJ sax woo na ko ne ko li nga yow pour nga moom au lieu mu setal boppam moom nit ñi lay woon ne leen setal leen ma yow yow yaay wax 24 heures sur 24 yow yaay wax. yow ñu jox la occasion pour nga setal sa bopp yow nga ni doo wax da nga noppi. d'accord léegi léegi yaay woo ay nit nag ne setal leen ma. d'accord loolu donc ça prouve quelque part que la monsieur il est à court d'argument et lan moo tax nga nekk à court d'argument parce que tu n'as tu sais ce que tu as fait. d'accord mais mais Françoise li nga xam te ne aussi moom moo jaaxal Sénégalais mooy soxna aji Sarr ak yéen ñi ñëpp li ngeen bëggoon wala sax li ngeen wax moo di dañ koo violer et que bëgg yoon enclencher mbir mi pour ngeen génne ay preuves yu firndeel viol am na effectivement mais depuis lors gisaguñ benn preuve bu nga xam te nii wane na ni Adji Sarr dañ ko violé certificat médical bi dégg mu fësal que ne Adji Sarr ça fait un bon moment sëyul ci jamono ji nga xam te ni sekk na ak soxna si. Euh, euh, man de porte wax nañ ko ne sekk na ak Ousmane Sonko. alors ma bàyyi ma jéggale sama ma jéggale sama argument boobu parce que du da nga may posé xam nga dugal nga par dugal nga argument boobu. xam naa ni beneen question nga may posé loolu dafay jàll dugg ci xelu téléspect téléspectateur yi que docteur bi nee na Adji Sarr gëj nañu yegg ci moom docteur amul capacité certificat médical mu ciy bind ni diw sëy na il y a 24 heures wala parce que docteur n'est pas témoin des faits. waaw mais ah parce que mu nekk un docteur lu dëgg lu leer laa lay wax. gynécologue amul droit ah, amul. ah mënul déterminer ndax nit ki sëy na ci 24 heures yi wala. mën na déterminer que du vierge. ok le docteur il est un témoin il n'est pas un témoin oculaire des faits nit ki fu muy sëyee docteur bi du ko fekkee d'accord li mu mën a déterminer mooy déchirure de l'hymen il a il a même il a mais d'accord voilà là il il s'arrête là il peut pas waxul leen docteur bi mënu leen wax te mu valable médicalement parlant que ndaw si gëj nañu yegg ci moom wala yegg nañ ci moom démb wala ci 24 heures yi kenn yeggul ci moom loolu docteur bi amul capacité je le défie moo expliquer scientifiquement comment ça il a pu le faire il peut déterminer qu'il y a une déchirure de l'hymen ancienne il peut déterminer qu'il y a du liquide séminal présence de liquide séminal ou non maniu mais mënul déterminer kii sëy na 24 heures yi wala 30 72 euh, heures yi loolu mënu ko médica mënu ko amul appareil buy déterminer loolu. kon da nga nekk di euh, mettre en cause. bu ñëwee moo ko wax jour bi maa ko mettre en cause donc il est de mauvaise foi. bu loolu man gëmuma ni docteur mën na ko déterminer parce que ba yaa y a un minimum boo xam ne jàng naa physiologie anatomie. Mm-hmm. j'étais prof de sport avant d'être euh, spécialiste en rééducation. loolu docteur docteur bi mënu ko déterminer. le docteur. alors Mandione tu viens chez le docteur sa gémmiñ bu toj. sa mm-hmm. bët toj. Mm-hmm. da lay ne la. lu la dal moom xam nga da koy ne dañ ma dama doon xeex mhm. mais du la bindal si certificat médical dafa doon xeex day wax ni bët ba toj na tuñ bi niveau arcade bi fii toj na loolu lay décrire mais mënul wax ndax xeex moo tax wala da ngaa da ngaa mbëkk da ngaa romb benn kuy ñëw mbëkk la wala da romb benn oto ramassé la ko yóbbu ci ay kuy ak ay oto non il faut que gynécologue la ñuy wax man je le dis xarañ damay joxe ay exemple terre à terre xam nga lu tax may joxe exemple terre à terre Parce qu'on a 50% d'analphabètes, 58% d'analphabètes qui ne peuvent pas lire les documents établis par le docteur, qui ne peuvent pas lire les documents établis par le capitaine Touré. Et ces gens-là sont à la merci des gens comme euh, Pape Alignon, des gens comme Babacar Touré, comme Wafale, Wawalf Bobnon, ñooñu ñoo fay toog di wax lu leen neex ña nga xam ne mënuñu lire dañuy gëm loolu. et parmi nous y a des lettrés am na ñeneen ñoo xam ni beneen catégorie boo xam ni xam nañu nu mu demee mën nañu lire. c'est boo de boo defee nii nag boo defee nii nag François émission bi du neex. waaw mais dama la bëgg a wax man sama position dama la bëgg a wax ni loolu moo tax yow li li ci kii bi est-ce que lire nga ko. est-ce que lire nga lire naa ko lépp. lire nga ko euh, kii document capitaine waaw liir naa lépp lire nga ko. waaw dinañ ci ñëw ma woon la ni que nous on lit en diagonale. d' accord alors euh, Alfousseyni. du ñu gis détails yi docteur Alfousseyni Gaye tey suñu ay naataangu taskatu xibaar Babacar Touré interviewé na ko mu ne Adji moo gis lu lu toll ni tarafatal ay ni dalu ko maanaam dara dalu ko te moom ci boppam proposé nañ ko xaalis bu bëri mais dafa bañ en plus de cela sécurité am actuellement dafa nekk dafa nekk en manque de sécurité ndax buy dox am na ñu koy surveiller. sonn na sonn gu nga xam te ne nii mujj na génn wax jafe-jafe yi muy jànkonteel à cause du dossier Adji Sarr Ousmane Sonko ana loo ciy tontu. ok euh, man euh, benn élément laa gis xaw ma na il me semble que y en a un autre y a un autre. y mu ngi nii actuellement diffusé nañ ko ba jot nañ ko. benn laa seetaan bi ma seetaan Babacar Touré malgré sa bonne volonté n'a pas pu imposer mu daanaloo ko euh, mënu ko daaneel ci piège bi parce que chaque fois. Mm le médecin. dafa réitérer dafa waxaat réaffirmer le fait que c'est un dossier en cours et que lui il a prêté serment c'est un médecin mm -hmm. Babacar Touré a lira, fait lira, des questions bu la neexee nga liral lii léegi la nii euh, dañ ak Ousseynou Gaye balance Adji Sarr bi ma gisoon dara dalu ko dañ ma mais lii c'est tendancieux c'est tendancieux toutes les questions étaient tendancieuses ñun dafa am euh, li ñuy wax technologie de recherche dañu koy jàngal booy def maîtrise Babacar Touré xanaa deful maîtrise parce que toutes ces questions étaient biaisées bu fekkee en terme de recherche en terme de travail bu mel ni li muy def question yi dañoo warut a orienté ki ngay ki ngay euh, ki ngay laaj. yaa jàngal yaa jàngal. mën naa ko jàngal parce que bu bëggee non gënu ko gënu ma ko muus. mais def instant yi nii. on m'a appris ça parce que j'étais enseignante. mais doo doo journaliste ak recherche doo journaliste. mais enseignement da ngay recherche j'ai fait un doctorat euh, je faisais un doctorat mais doo journaliste. recherche yéen la waaw léegi dëgg moo xam nga yéen da ngeen di am ah, vous n'avez pas l'apanage de de la recherche journaliste lan la on vous apprend à faire des questions quand tu fais un doctorat tu fais des questionnaires questionnaires yooyu dañ koy tester xool sa question bu xawee mel ni kuy induire dañ dañ dañ koy éliminer dañuy tester say questions yi ngay poser échantillon bi nga xam ni moom ngay. moom ngay euh, jël comme l'échantillon représentatif de la de ce que xam nga population bi ngay bi ngay tëkkee bi ngay bëgg a euh, établir une vérité scientifique mhm. maintenant Babacar Touré toutes ces questions étaient quasiment des questions orientées des questions où il induisait la réponse pratiquement. mais mais mais maintenant ñu ñëw même bu fekkee ces questions noonu la demee mais c'est le mu li voilà li mu titré encore une fois. c'est à moo def ko silence voilà. maa ngi jéggalu. Ah. koy fay maa ngi jéggalu. Ah. Euh, je veux vous dire. Mm-hmm. que man ci li ma seetaan man. Mm-hmm. li docteur bi wax ak li mu titré bokkul. docteur bi dafa ne moom moo laaj docteur bi ki gis est-ce que. dafa nuroon koo xam ni dafa dawee ci néeg mais kan xanaa képp ku judd képp ku génn ci viol dangay daw ci néeg daal di ñëw hôpital mu ne ko dafa mel ni ku xam ne dafa rëccee ci néeg wala koo xam ne dafa nekkoon ci ay métit yu euh, nak ay coono ay ay mais attends jigéen dinañ ko violer pendant des années ci biir benn néeg mu koy bokk ak ñeneen yi te ñeneen duñ ko yëg so c'était tendancieux loolu laa lay wax xam nga dañoo bëgg xam na métier mi am na ci expérience yàgg na ci bu gisee koo xam te nañ ko violé regardé dina xam exactement dama ne dañ ko violé dama ne une femme mariée mën na accepter rapport consentant mook jëkkëram borom këram mu yegg ba ci digg bi ne ko dama sonn sama bopp day métti mhm. bu jëkkëram dégluwul loolu violé na ko bu fekkee ni jigéen ju ju ju ju yegg la bu ko neexee mu dem porter plainte day dox normal dem porter plainte pourquoi ngeen bëgg que Adji Sarr dafay ñëw les cheveux en bataille di transpirer am ay tëcc tëcc ay tëndandi wala lenn pourquoi vous voulez que ce soit comme ça et elle vous a dit que viol répétitif la que du benn boobu la yegg ci moom te docteur bi confirmé ko ne déchirure ancienne de l'hymen man xamuma exactement ce qui s'est passé dans la chambre là et je ne pas qu'il est le violeur Ousmane Sonko a violé mais je veux vous dire que li ngeen bëgg a teg comme argument pour jeter à la euh, jeter rejeter l'argument du viol que la possibilité du viol ça ne tient pas et venant de ce docteur je mm. pense qu'il aurait dû être plus catégorique j'ai il a été très complaisant quoique il a essayé de ne pas essayer na pour ne bañ a violer son serment mais il a été assez assez faible assez il a manqué de souveraineté dans le refus de se faire manipuler ce que j'ai vu c'est Babacar Touré qui a titré ça et c'est pas ce que le docteur a dit. mais li mu wax li mu wax loolu docteur ah? non non non Babacar Touré dafa dafa déformer les faits les les propos il a dit gisuma woon koo xam ni dafa mel ni dafa stressé woon wala dafa jaaxle. Mhm. j'ai vu quelqu'un de serein. quelqu'un de posé. waaw ah, mooy koo xam te ne dara daru ko rek mooy gis naa koo xam te ne dara jotu ko. dara yokku ko nit dina ça dépend du de la personnalité. de xale bu ndaw boo xam te ne mu la ko violé waat ko. mu nekkoon esclave sexuel ba mujjee niis loolu xam na ni que ñu ngi koy tooñ mais ba sax dafa mujjee fippu mais niis na ñu koy ñu yegg ci moom. te fekk dëgg ko yaa ngi confirmé ni que ne viol nañ ko violé. violé eh, dama li mu wax lay wax. moom dafa dem ba viol répétitif mis na ñuy yegg ci moom sans son consentement parce que dañ ko doon def comme objet sexuel comme esclave sexuel d'accord ok d'accord léegi àllu seyno un esclave sexuel mënut a jógee mënut a ñëw ci moom di rëppi rëppi di jooy ak ki def comme comme euh, elle aurait pu jouer dañoo bëggoon mu jouer cinéma non du ko def elle est venue parce que loolu yàgg na ko dund intériorisé na ko transcender na ko mais elle veut quand même que justice se fasse il faut que les gens arrêtent de manipuler le Sénégalais titre bi d'accord docteur bi waxu ko c'est Babacar Touré dans ses œuvres mais dégg nañ docteur bi aussi wax jafe-jafe bi jànkoon jafe-jafe yooyu man dama xam waa Kër Sonko yàgg xeex ak ñoom ku la wax ne du ñoom ñooy suivre ñoom ñoo créé mise en scène boobu pour que docteur bi defe ni que état bi boo koy topp pour lan état bi di topp docteur bi état dafa soxla di topp docteur bi état Sénégal soxla ni topp docteur bi et qui vous dit que topp ñu ko pour sa sécurité parce que ñu ngi ragal que waa Ousmane Sonko sañ nañu dem rey ko. sañ nañu lu raw loolu dem rey ko. li ngay wax ni c'est dangereux. dama ne waa kër Ousmane Sonko sañ nañu dem rey docteur bi pour teg ko ci loxo état bi pour tuumaal état bi ñooñu dañoo capable dama leen xam. dama nekk ak ñoom da nga mës a gis ku ñu rey yow. man pour man ñaata lañ may menacé. mais dama ndax da nga mës a gis ku waa Ousmane Sonko rey. mais ñoom ñooy menacé rey ñoo dem kër euh, maître El Hadj Diouf taal ko menacé taal kër Aïssatou Diop Fall menacé taal kër xaw ma taal kër Birima menacé kër ñoom Marème fay Sall madame Marème fay Sall fële Saint-Louis ñoom ñoo wane ni ñoom ñoo capable la ñu wane ni moom capable nañ ko moom laa leen di témoigner tey parce que gis nga docteur bi ña koy topp mën na am que c'est pour sa propre sécurité parce que état bi xam na ni waa kër Macky euh, Sonko. attan nañ ko éliminer pour jël ko teg ko si ndoddu état bi ne gis ngeen d'ailleurs docteur bi rey nañ ko lu gën a gën sa sañ nañu la yow loolu. d'accord donc rien ne euh, docteur Alfousseynou pour joxewu xam nga xam nga lenn aussi moo mooy mooy mooy le problème du Sénégal. docteur mhm. Alfousseynou dafa wax rek ngeen gëm ko. Mhm. am na ñu may topp ngeen gëm ko. Mhm. te pourtant deux ans Adji Sarr ngi ne dañ maa dañoo yegg ci sama kaw kenn nangu ko gëm. am na ñu ko gëm yow ci nga ci nga bokk. non mais l'essentiel. waa kër Sonko nanguwuñu ko dégg MC MC Niass avec son passé trouble dafa ne yor naa ay ajoore ñu ne MC ñu daal di ko def mu nekk wàlliwu pourtant MC ba mu génne di ah, di di défendre Adji Sarr lu ne lañ ko yàq saaga nañ ko ba mu tooy xepp waaye ba mu waxee ni audio gëm nañu audio yi. waaye ki nga xam ne dafa taxaw pendant deux ans di wax ni kii dafa yegg sama kaw te nanguwuma. d' accord d' accord nanguwuñu ko may benn nopp. d' accord merci beaucoup alors euh, ba léegi. laaj naa la question bi tontoo ko ma ci. ni may waxee merci beaucoup. merci non non non maanaam da may bàyyi bu ko defee ñuy waxtaan su ko defee waxtaan wi mais bu fekkee da ngay bëgg a jël kàddu gi ko defee ñi ñuy seetaan aussi duñ mën a jëriñu ci waxtaan wi. Euh, tey jii dégg nañ MC Niass génne ay preuve ay audio yóbbu ko ci ki nga xam te ne moom moo nekk Maham Diallo euh, audio yooyu noonu Cheikh Bara Ndiaye ñëw na ci contenue audio bi mais déjà bala ñu ñëw ci Cheikh Bara Ndiaye ak ni mu nettalee kii bi. ki nga xam te moom moo nekk MC Niass dafa enregistré Adji Sarr Adji Sarr tey dégg tey ji xaw ma démb dem na confirmé que ne kàddu yooyu moom moo ko yëkkati loolu aussi est-ce que tamit jotul nag ngeen bàyyi lépp ñu xam ne dossier bi vraiment dëgg ji feeñ na xam nañ fan la fan la mbir yëpp féete su ko defee ñu jàll ci leneen moo gën ngeen siisu ba tey ci dossier Adji Sarr Ousmane Sonko. waaye yow journaliste nga wala supporter nga. déedéet. mais parce que là vous de faire de maanaam yow léegi fi mu ne nii atte nga atte nga. maanaam procureur atte nga dossier bi. maanaam maanaam maanaam Adji Sarr moo wax yor na preuve. mais foog nga ne Adji Sarr vous êtes d'accord avec moi. Adji Sarr a deux avocats de très haut niveau. Abdou Diallo ak maître la Hadj Diouf. tu penses que ces avocats là dinañu dugal seen réputation seen carrière ci loo xam ne amuñu benn preuve. xalaatal ref il y des choses c'est très facile il faut juste réfléchir un peu maitre Abdou Dialy Kane. Mhm. xamee nga ko caaxaan maître El Hadj gis nga ko mu ñàkk dossier. bëri na am na day ñàkk dossier ban bañ a ñàkk day ñàkk dossier konteel ma wax ma benn non day ñàkk ay dossier loolu mënut a ñàkk est-ce que xamal nga ko benn dossier bu mu ñàkk bëri na ça c'est la rumeur populaire bëri na El Hadj Diouf gagné na dossier non xoolal loolu jéggal ma ko rek wallaay def naa ci live jéggal ma ko rek dossier yi ñu ko xamal c'est des centaines yu mu gagné d'accord même à l'international d'accord d'accord mais xam nga ni wax naa la citeel ma benn bu mu ñàkk d'accord léegi bu Adji Sarr bi danga foog ni dina jël bu Adji Sarr bi sa réputation di ko mettre en jeu bu Adji Sarr bi foog bu amul woon preuve bu Adji Sarr bi am nga yaqin ne da ciy am ndam da man gëm naa ni man en âme et conscience dama lay wax de mhm. honnêtement. Mhm. aji que daf dafa am daf ci am ndam. parce que féew liy qualifié viol du ma mais xam naa ni abus de vulnérabilité bokk na ci ascendance bi mu am ci kaw aji saar ak ci kaw ndey xadi bu fekkee ni yegg nañ ci kaw aji saar biir Sweet Beauté rek mën nañ ko qualifier que abus la viol la. Mhm. parce que daa mel ni yow nga am sa secrétaire boo jógee yegg ci kawam moom ñemewul wax déet parce que day ragal a ñàkk liggéeyam parce que bu ñàkkee liggéeyam sa subsistance sa sécurité au niveau de la sa place dans la société est menacée donc day nangu contre malgré elle et dans le cas de Adji Sarr ces situations-là sont vérifiables la précarité l'indigence maanaam damay bañ nga bañ la jeunesse dugg ci émotion ak yooyu noonu. soxna dugguma ci émotion li ma lay wax science la. non science la xam nga xam bëri bëri nga xam-xam ci matière yëpp. Ah, non non non non non non ah, man nag laa jël ñuy ànd ak man man li ma xam rek laa xam sport laa xam ak rééducation. d'accord ñaar yooyu lay wax. d'accord li ci des réseaux sociaux laa xam. d'accord léegi. mais lii a teg ci taabal ji ne. ab viol am na ci dossier Adji Sarr Ousmane Sonko. mooy li ma la wax léegi. la abus de euh, l' abus de vulnérabilité. ascendance makkaamam makkaama bi mu am tax na bu waree taxaw. loolu njorto la ak njorto njorto loolu loolu dafa nekk loolu. loolu ju dinañ ko leeral ma bi mu am daraja gi mu am bu taxawee xale bu am vingt ans boo xam ne fu muy fanaan fu fu sax amu ko le repas du lendemain. garanti wul ni am na ko mu am place boo xam ni ka fa ne da ko jox le gîte le gîte jox ko place chaud di ko solal di ko jox ay loo xam ne musu ko am yëre yi mu musuta am jox ko benn une certaine sécurité sociale xale bi day ragal a génn foofu retrouver la rue l'indigence la vulnérabilité di buruxloo ci benn néeg avec dix personnes donc lal boobu mu am lekk bu baax boobu mu am xaalis as tuut bi mu am ak reconnaissance sociale boobu moo tax ba du ko bëgg a ñàkk donc day préférer quel que soit alpha mu mu accepter conditions yu ñu ko tegal pour mu continuer nekk Sweet Beauté. d' accord d' accord léegi euh, tey jii nii si Niass def na ay vocal def na ay audio yi nga xam te ne nii joxe na ay audio yi nga xam te ne nii jàpp enregistré woon na ko ci Adji Sarr Adji Sarr ci audio yooyu noonu bu ñu sukkandikoo ci ki nga xam te ne moom moo nekk Baara Ndiaye Adji Sarr dafa wax ni. maanaam lii lépp ab complot la te complot boobu Mamour Diallo moom moo ko tàmbali ak euh, doomam jooju wala sax ki nga xamte moom moo nekk euh, tour Tourbalaay Fàtte moom tamit ñoom ñëpp ñoo boole comploté ki nga xam te moom moo nekk Ousmane Sonko Adji Sarr confirmé loolu.